Monsieur le président de l'ONCAV xew-xew bi nga organisé état dina la jàppale. dinañ ko tàmbali liggéey bi li ci gën a bari. nu mu gën a gaawee. Euh, stade yi ma fi tudd léegi. mooy yeneen stade yoo xam ni tudd guma leen. mais Moustapha Ba mi ngi may dégg. xam na ni lii nga xam ni président nee na nañ ko waajal askan wi. ci juróomi at yii di ñëw. nañ ko ci boole département yëpp incha allah bu ci nekk di nga am un stade digne de son Sénégal dafa bëgg a organiser Coupe d'Afrique en 2027 ne woon nañ ma ni dossier bi baaxul ñu ngi avancé de incha allah am nañ ci yaakaar bu wér dinañu organiser Jeux olympiques en 2026 infrastructure yi mu war a àndal yëpp dina yem buñ ci tolloo loolu nag dañuy dox ci vision président Macky Sall moo tax ñu mën a def lu mel noonu sport nag surtout nawetaan dafay ànd ak passion ñu leen di au nom de la République ñu respecter ay valeurs sport muy fair play ñiy jogante ay doomu Sénégal lañu nawetaan ñi ciy jongante ay dëkkandoo lañu